lillahi wa inna ilayhi rajiun di ñaan yàlla yàlla nañu yàlla yool si musiba bi te ñu lu gën lu ñàkk Baye Thiam seede ci Seydi Moulay Cheikh Mouhamadul Mansour Cheikh Mouhamadul Mamoun Ibrahima Niass yomb na lool ndax ni euh, mel dafa jafe mhm. te nit ki mënut a tricher saa kenn ku nekk ci ñun mun na wax Mansour nu mel ci man mel ko kenn loolu munu ko mënut a dajal ñëpp di leen nax ci loolu jikkoom la mhm. loo xam ne ne daf ko doon ci baayam mhm. mu Seydi Mawlaay Cheikh Mouhamadul Mamoun Ibrahima mhm. mu doon ko ci maamam Mawlaay Cheikh Islam Hadj Ibrahima muy comme nu nga ko waxee rek jëmm ju màgg jëmm ju tedd jëmm ju yàlla barkeel jëm jo xamne jëm yermane la jëm mi yërmaane la jëm mi mbaax la jëm mi jëm mi jëm mi jëm mi ba du jeex muy Seydi wala Cheikh Mouhamadou Mansour di nek xarit si ñëpp waaye xarit ci sama xarit spécialement saa yu ji génn naan guddi rek ci sama kër la jëm muy fi wala ciofak nek sama xarit lool boluma lool bëggal ma bofum lool ñu daan waxtaane saa su nekk rek mhm. mustaqbal madina mhm, mhm, loolu rek moo ko yittiloo dëgg la dëgg la dundam yëpp daf koo jeexal ci li bàyyam bàyyi woon pour nas ko pour madina naka la war a mel moo tax ma dugg ci siyaasa bi moo tax ma dugg ci nii dagg ci lu nekk rek pour madina jëm kanam dëgg la li bàyyi mébétoon ci ay jeunesse am comme ni ko waxee léegi rek ميون شي بيوار وري ان مستقبل كل وطن انما يتوقع على شبابه لا على كل شبان انما على شباب المثقفين ذوي الاخلاق الحميده وهمم العالي همم العالي بونك اخلاقي يب رانغونك رانغونك بما تسك بودامي شي مؤتمرات عالم اسلامي خمنا باي تيري بيغا خمنا تالف مكو موي 25 سنه على رحيل الشيخ بنغي شي لو ياتو لو moom dëgg-dëgg feesoon na place boobu. Mm-hmm, mm-hmm. macha allah mu ci jooñ xuus lu yaatu. Mm-hmm. daan ci tabax lu rëy. saa yu toogee ci moctamarat al yow bu jëlee discours bu ñu ko ooyee rek. dafay sharafal xadara bi. dafay tashrifal Mawlana Cheikh Islam Hadj Rames. ban dëgg-dëgg nit ku baax. nit ku màgg nit ku tedd nit ku yàlla teddal tamit. nit ku barkeel nit ku yàlla barkeel. nit ku tabe woon lool ci darajam. Mhm. képp ku ñëw ci moom dina la jug nuyoo la accueil la. Mhm. accolade la bu ko laajee jaar sa sant jaar sa. Mhm. nu mu la mën a teral teral la ko. nit ku baax. dëgg la nag jaraloon na ko lu ne. gis ngeen injaazaat mi fi def. tabax fi mataayim تبخ في الراديو تبخ تبخ تلفزيون ما يفات لكو ديريكت بو خم جورنال ما يفات لكو ديريكت بو خم اي ام تي في دافون نكو تي بي بي 2015 خم 2016 مو فاي تي خالص بري تي بن تيلي ني ديندي لوغو تيلي بوبو داف اي ام تي في 100 اي كالكول لا سي داف بان دغ دغ سا سو نيك ريك مو دون رفعرايت المدينه في عالم بيب بور شرف بو نيك دغ دغ دام métti métti métti dina am waaye yàlla mi am jëm yàlla ñu ko yàlla jàngal ndax maa nañ sax mi ne ayati ñu si naati bi xëyri mi aw medina yàlla na yàlla mayaat ku mel ni Mansour dina jafe waaye nag dañu gëm rek laaye boobu te dëggal ko yàlla lu mu wax rek dëgg la yonent bi sallallahu alayhi wasallam lu mu wax rek dëgg la laa yantiqu anil hawaa in huwa illaa wahyun yuuhaa ba ñu koy jaale umma islam bi yëpp di koy jaale xalifa bi Mawlaana Cheikh Mouhamadul Mahi Ibrahima Niass di koy jaale Cheikh Mouhamadul Amin di koy jaale mboolem njabooti baay bi waaye di koy jaale Seydi Mawlaay Imaam al Akbar Cheikh Ahmed Tidiane Ali Cissé waaye di koy jaale naatiq rasmi bismil hadra Cheikh Mouhamadul Mahi Ibrahima Niass Cheikh Mouhamadul Mahi Seydi Ali Cissé waaye di koy jaale mboolem taalibe yi mboolem muqaddam yi mboolem ahfaad yi shabaab yi di koy jaale mboolem aalam bi ndax aalam bi yëpp a ko ñàkk di ñaan yàlla daal yàlla na bàyyi teeru ko yàlla na ko bàyyam sëñ Maamun teeru ko yàlla na ko Cheikh Ahmad teeru Yunus bi sallallahu alayhi wasallam teeru ko yàlla na dëkk ñoom ci gën sàkk waay daraja lina maa nabiyina wa siddiqina wa shuhada wa salihina allahumma salli ala sayyidina yàlla tànnal ko weer ndax weer wi nga xam ne weeri maamam di weeri rajab war cee wuyu ji boromam wuyu ci boromam loolu yaakaar naa beneen ngëneel la. waaw beneen ngëneel la beneen yaakaar la te luy dëggal yaakaar yooyu yëpp mooy lu mu njëkk mujj a wax ku nekk dégg na docteur bi lu mu ko seedeel mooy ne. daf ko téye na ko seedal na na jullit laa seedal na na tijaan laa seedal na na taalibe Baay laa Baay ngi nii jàkkaarloo man di may teew loolu kon day dara amul ñu tiit ci ay jëfam yu baax rek lay fekk la chèque na euh, damu damu la waaye ñu ngi ñaan yàlla daal yàlla mi mën a jàng yàlla na ñu ko yàlla jàngal moom tamit yàlla na ko yàlla wane la ay jëfam wane la ko ay waajuram bi jaay sëriñ sallallahu alayhi wa sallam